Le wolof er juin, wolof non le 1er juin le délibéré dit, maître le sentiment wolof la wax maître le wolof er juin délibéré donc euh, comme vous le savez la chambre criminelle de la cour d'appel a fixé le délibéré

sa doomu ndey moo ne la sa géem bi waaye bu dee presse la boo xam da ngaa far da ngay dof da ngay rakkaaju doo nekkati nit kon dama bëgg ñu def tànk rek bin bin xam ne man li may leen di wax yàgg na depuis deux ans ñu ngi wax nañ fi sama kër yi moom day takarnaase fu nekk dëkkal nañ ma waaye ma taxaw di dëgër këcc xam naa li ma yore sama loxo xam naa ni am na man yu bu ma téye xam naa ne laboratoire bi wax na ko waaye yemee le secret de l' instruction ko woon a wax tey nag mën nañ koo wax ndax lépp leer na tey fi ma xam ne nekkee benn pareegu ma donc dama leen di yëgal ni tey lépp leer na am na ñu waxoon ne Mamour Diallo moo jël Adji Sarr ci oto bi yóbbu ko CTO loolu kàcc la tey leer na ne docteur Gaye bi nga xam ne ñëpp xam ne ne Pastef Kolda la moom nee na من سما خريط متر غبي موني ما أمنا لخيو أمنا خلبي جيجين بوخمبي ليجيتي مام بقول كم كوب في بيوم دكتور غا أم غدروا جين دو كجلي نقولكو نقولكو غيري الله مدام جليكو عندك سيد أمين ما يمخم سير بودي في منك سيد أمين ما يوبكو سير بودي خلبي جين نيوبكو ديجي يوبو كتانج تانج بي دكتور غاي ده بريلف ما jokkoo laboratoire bi nekk CTO ni ko xoolal ma xale bi lan moo nekk ci yaramam ndax am na lu ciy nekk ndax dañ ko tuddee wala déet ca booba Sonko neewoon na moom xamul xamul Sweet Beauté masuma fa teg sama tànk xaw ma aji saarit far mu effacé ko ci Facebook am du ma ko bindoon ci page am ñëpp gis ko Bassirou Diomaye Faye nee na Sonko mosu fa teg tànkam gis ngeen am na ku fi taxawit beneen militant am porte parole am nee na te na kaamil dóor waaye sama sénégalais yéen nag waaye nit bu fenee da yéen da ngeen di ko gëm rek kenn ku fen benn yoon rek wala su man ñit bu ma gisee ñuy topp ci kooku di ko gëm bay dee di mu fen a fen ba ñëpp teg seen bët man damay jommi jaaxle ci Sénégal may oo sama xale samay jarbat samay doom yu gën a yeewu presse bi gëm la woon nañ leen man gis naa benn gis naa benn journaliste bu doon génn benn benn certificat médical di ko wane ak benn journaliste boo xam ne émission bi chaque jour mu ne xool leen kii dañ ne dañ ko laalee yàgg na xale bu jigéen bi waaw xale bu jigéen bi dañ ko laal laal ko laalaal ko kon ba mu roode loolu kon boo nee perte na ndawam mooy kenn laalu ko kenn violé ko xamoo dara yow moom nee na dañ ma yàgg laal viol répétitif mooy laal bu amul bu amul jeex waaw yow nga yow nga taw jël PV naa gis ngeen de laal bi kii nekkatul nekkatul xale loolu du problème bi problème mooy ndax yàgg nañ ko tëddee wala déet waa ku ñu tëddee lu yàgg kay xan di nga roode boo roodee kay doo gaañu boo roodee ku yegg ci yow du la gaañ loolu tey moo feeñ tribunal mu ne tëddee dama juróomi yoon joxe bis yëpp ñu ne comme gaañuwul rek kon kenn violé wu xam nga loolu mooy waxi dof waaye waxi dof bi xam nga bu gën a garaaw mooy ki kii ni kay def test ADN mu bañ yow nga ne defoo dara kii da nga yegg ci moom pour mu leer comme bis bi nga yeggee ci moom ci guddi ga même pas quatre de temps ci dégg ngeen ci ñu doon wax lu leen neex daan nee nañ ay ay ay ay bis yu bëri xale bi sëyul kenn waxu ko de ko da ngay kàcc tey li fi gars yi wax gars yi bi mu ñëw ci tàng-tàng bi lan nañ def prélèvement kon xam ne laal nañ ko diñ ko laalee mu ne mu ne ci ngoon ga résultat bi génn résultat laal bi lan la mooy am na lu nekk ci moom lu ñuy wax spermatozoïde vivant mooy mani yu boor mu ngi dund ba mën a am doom nee na mu bindal ko pilule du lendemain waa ñu taxaw ci wëy télévision yi émission yi ku gën a riis sa làmmiñ naan waaye certificat médical bi kay seetal la Sonko waaye ñii duñu xalaat seen bàmmeel ñii duñu xalaat preuve bi mooy mooy test ADN bi bi mu bañ a def ci man yu buñ ni ci guddi gi jël nañ ko ci yaramu aji kenn kenn rek tëddal keroog ci guddi gi dafa tëdd ak moom rek docteur gay jëli ko léegi nag kon dafay yoon ñu yaakaar ne daneen condamné ah soo koy pour fukki at dix ans d'emprisonnement minimum bi mooy ans mooy crime viol dañ ko criminalisé Sonko war nañ ko tëj fukki at. procureur loolu la wax mais li ñu jaaxal mooy procureur daf ko ba pare xaw a daw res tuuti. ginnaaw wax muy bëgg xaw ma lu mu bëgg naan am na bu boobu àndul te moom li mu wax dafa leer naaj procureur dafa teg 10 ans yi ci lu leer. ba pare ëlbatiku ne bu dee fekkee yow juge bi gisoo ne loolu am na nga wane ne xale la boo xam ne dañ koo jaay doole teg ko dil yegg ci kawam mën mën ko loolu man d'accord ma xam nga man boo ko def cinq ans di wàññi waaye seen foo demee prison be am nañu fa am dix ans Sonko moo leen gën nu ñu war a ragalee Sonko lu ñu koy baralee loxo gis nga euh, gis nga Sitor Ndour maa ko maa ko ñu génne ko man mii maa ko acquitté te dañu waxoon ne am na certificat médical bu ko dugal certificat médical bi li wax mooy kenn la kenn laalu xale bu jigéen bi waaye am na ñu dem ci presse partout naan Sitor Ndour am na certificat médical bu ko dugal xoolal dañuy manipuler nit ñi. trois médecins ñoo ko signé woon si son ak benn professeur agrégé ñu ne xale bi xel laalu ko ñu gëmloo nañu ni si son Ndour dem prison audio bi séeréer ñu ne audio bi dugal na ko fi mu ne nañ négocier waaw mu ne man defuma dara ci audio bi séeréer la waaye bu dee xaalis ngeen bëgg ñëw leen ma jox leen xaalis ngeen bu leen yàq sama der bi man xale bi jigéen bi du ko laal mukk soxlawu ma ko kooku fu mu ne fu mu nee ne fu mu waxee ne man la nit ñi nañu xalaat seen bàmmeel moo tax ma ne si son Ndour a tëj o kaso ba o acquitté ko deful dara Cheikh Yérim Seck ak ñeneen tëj nañ leen fi kaso ci pour viol viol crime la ku ko def dañ lay tëj buñ la ko accusé dañ lay tëj mel ni Ousmane Sonko rek moom kenn moom dong moom rek lañ fi accusé de viol ñu prélevé sperme CTO ah déposé ko ti kay arrêté ko. ban sentiment si o teewaayu moom dañ ko faral kon. Ousmane Sonko ni koy dimbalee ni koy jàppalee ëpp na mu taxaw naan dañ koo bañ Macky Sall koy xeex ki moom. dañ koy defal traitement de faveur Sitor Ndour APR la def na 9 mois prison. plaide nga sans sans la présence de la de la partie adverse est-ce que vous avez le sentiment que voilà. Euh, mais c'est vrai xam nga yow Khalifa Khalifa je laa bëgg ndax ba ñëpp dangay yow yaa assuré yaag daam jeeg yéen assuré woon ak ak ak yéen ñaar rek la ite TFM dafa dawoon res keroog ñu bëri dañoo aji saar ndax dañoo ragal booy yi ak bandi yi saagakat yi ak reekat léegi nak yow khalifa xam nga ni la nga laajoon léegi encore. <laughs> dañoo en ni. à vaincre sans péril on triomphe sans gloire. am na benn poète bu ko wax. ñun amuñu ñu neex ci côté bu ñu bu yoree ba a dugub ñu xam bu yorul ba a dugub ñu xam ñu xam yan argument la am waaye dafa yombaloo nga ne ñëwuma xale yi dee leen sama bundu kër te boo ñëwoon day simple ma laaj la ndax la yow yaa def li ndax bis bi yaa ngi woon yaa ngi woon sur beauté ndax bi nga demee ndax sa maniwu lañ jël wala jëriñu ko ndax keroog yëg nga ni docteur Gaye bi nga xam ne sa militant la moo jël si woon euh, aji saar bee boobu xamatoon ni patron moo am séq aji saar lu doy waar a professeur Gaye bi muy jël si Adji xamul ni patron ci politique mu am problème ak Adji Sarr dañ ko rek am na xale bu yegg ci moom benn xaritam wax ko ko xamul nu mu demee mais mbir yàlla tey mu ne fekk nañ ma niw ci kaw Adji loolu la laboratoire bi wax waaye kon kay xam nga ne xalifa mbir me leer na naññ mbir mi leer na naññ kii li procureur wax ñun d'accorduñ ci ndax crime dix ans nga war am ñu bëri am nañ ko fii ñi nekk prison Ousmane Sonko gënu leen ndey gënu leen baay masu leen a gën ñëpp war a yem devant la loi amul ku ñu war a jël teg ko ci kaw loi bi kon nag tey am nañ mbégte quand même c'est vrai ñëwuñu du sañoon ñu ñëw ñu duma leen duma yéen bëggoon a duma waaye comme daw nañ it moom yu tribunal bi ndax Ousmane Sonko moo ni man duma wuy seeti tribunal man justice sénégalaise amatuma affaire ak moom man wuy duma wuy jeeti justice man faaleetuma justice ay ma saaga magistrat yi kon xam ngeen ni le premier juin maître luy xew magistrat yi le premier juin dinañ wax liñ gis tey xam nga ne plaidé na ñun démocratiquement ku nekk ni nga ko o ku nekk wax li xalaat ci dossier bi di ko dalee ci aji saar ci ne Xadi Njaay seen nekkin ca dëkk booba Sweet Beauté xaw ma raay mu neex la xaw ma nu mu tudd Sweet booba la am en tout cas sori yàlla dafa doon am ci kilifa gu bëgg a yore réew sori naag toppatoo njaboot gi jaamu yàlla wane exemple xale xale yi waaye koo xam ne ci débauche ga nekk ci lañ lay atte comme ne Xadi Njaay ak ki nga xam ne ne yow yaay complice am